julli ji ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal sunu sëriñ cheikhuna ahmadul xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bii nga xam ne bisu lislaam jépp ci bis bi nga xam ne bisu mbooleem taalibe Sëriñ Tuubaa waaye di bis bi nga xam ne sunu borom moo ko jagaleel <clears throat> sunu kilifa ga sunu royuwaay wa sunu sëriñ ba sunu maam ja muy Cheikh Sidi Muxtaar maam Cheikh Anta borom gaawal li fab sunu nuyoo boobu nag ak sunu ziyaara boobu teg ko ci loxol kuréel gi nga xam ne ñoo taxawee bis bi muy ñi nga xam ne ñooy daairatu ahfadi Cheikh Sidi Muxtaar di teg nuyoo bi ci seen loxo ñu tegal ma ko ci loxol Serigne Cheikh Anta mi nga xam ne moom la ñu dénk liggéey bi mu yoral ko ay kilifaam yore bu rafet yàlla na ko sunu borom gën a dëgëral yàlla na ko gën a may ak wér mu teg ko ci loxol nag ay kilifaam te Serigne Abo mooy jawriñ yi kër Serigne Mouhamadul Mamoun waaye Serigne Abdul Qadir mi nga xam ne mooy saytu kër Serigne Mouhamadul Mamoun ak mboolem njabootu Cheikh Sidil Muxtaar ñu tegal ma ko ci loxol alxaaji Mor Faati mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Seydil Muxtaar yàlla na fi yàggati wér di nuyu mbooleem ku teew ci jataay bi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw waaye di beral nuyoo nag kilifa yi nga xam ne dañoo ñëw taaral jataay bi sagal mbooloo mi ci seen teewaay te ku ne xam na ne kuy séentu gis bu toll nii bi ñuy séentu doo am jot waaye li muy xat-xat taaral jataay bi taaral bis bi sagal mbooloo mi tax na ba ñoom ñëpp ñu bàyyi seen yitte teew ci waxtaan wi nag dana xat lool ci man wax naa ko sànq ci suuf dama koy wax ci kaw ndax ñi ma séq ndaxte Serigne Fallou gën a silla toog ci péncum Daaru Salaam di wax mu jàkkaarloo ak yow dalul xel sëriñ Xaadim Mbàkke cheikh bu mi toog di boroom xam-xam bu ràññiku ci daaru salaam ràññiku ci yoonu murit moom itam ne ci sama wet sëriñ Bouchra Samb mi ñëpp xam mu jàngale lu bari ci jaar-jaari Cheikhul Khadim ak jaar-jaari mag ñi sëriñ Mamor Mbacke xam sa diine moom itam ci jàngalin wu rafet wi yiw gi ak xam-xam bi ñooñu ku ñu séq nga yore microphone di wax bay boo wax loo xam wante Cheikh Sidil Muxtaar toog ci péncum Cheikh Seydil Muxtaar yaakaar naa ne lu mu wax bu doon lu wërta waxit kenn du ne ko doog fi waxe damay teel wax ne ñoom ñi ma tudd li ñu xam ci borom bis bi ak borom pénc mi moo ëpp man li ma ci xam damay wax ne ñoom ñëpp te dama ciy boole Cheikh Anta Samb ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa làmmiñ moo gën a set sama làmmiñ kon bu fekkee sab xam-xam matewu ko saw làmmiñ tam taxul mu set nga fas yéene wax ak ñu xam seen làmmiñ gën a set baya boo nga takkaat sa ndigg ba mu dëgër te xam ne nattu bu dal ci sa kaw rek la bis bi nu daje di teeru bis bi nu dëgmal fas yéene cee waxtaane kenn ci mag ñi nga xam ne dañuy kenn ci yoonu Serigne Touba waxtaane mag ñi waxtaane ñu baax ñi am njàng la ci ñi koy waxtaane ndax bu ñu gëstoo dañ koy xame lu ñu xamutoon kon am njàng la ci ñi koy waxtaane di am njàng ci ñi koy teewlu kon waxtaane ñu baax ak waxtaane lu baax day jariñ ki nga xam ne moo koy waxtaane bala muy jariñ sax ñi nga xam ne ñoo koy teewlu yàlla dafa wax ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ne ko alquran jii ma wàcce ci yow di la nettali nettali yi gën a rafet da nga cay jànge lu bari te ba ma wàccee ba ma wàccee gut alquran ci yow xamawoon li ma lay nettali xamawoon sax géej gi lu muy riir xamoko won waye net li lii ma lay indil ci alquran mo la jàngal lu bari nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin bo deme ci kahfi saru alkahf yàlla da fay netali qissat ashabul kahfi ngir bëgg ñu man ca jële am jang man ca waro motax tax mu wax ak yonent bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan wa rabatna ala qulubihim ba qissa ba jeex mu jële ca njàng mu bari te njàng moomu ngay jële ci xissa yi ak nettali yi nag du ay léeb du ay léeb waye day aw ay xew-xew yu mos a xew yo xamne buñ la ko netale da nga xam la xewon dembu dana tax nga xam foy tek sa tànk tay ak ëllëg laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab maa kaan xadisan yuftara du ay léeb walakin tasdiqa alladi bayna yadayhi وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون kon xissa yi buñ koy nettali day tax nga xam démb xam sa tey xam fooy teg sa tànk ëllëg yonte yàlla Moussa ba mu jaaree ay jaara-jaaram yu bari ba dajeeg yonte yàlla Shuaybu nga xam ne ca la addunaam soppi ko lool dako ko nettali fi mu jaar ba mu xame fi mu jaar ci la àddunaam soppi ko falamma jaahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin ba mu ko nettalee ba mu xam li xew rek la ne ko baye bo sa xel dal te xamne muccu nga ci say non lolu mo waral serigne Moussa Ka wax ci ay woyam ne boroomam sax la ko wax meloy bàmbaa gi waaju xamul na dégloo te roy roy luy jikkoom moo xam boroomam dafa bëgg bu lay nettali melooy bàmba nga di ci jéem a nab na bi di ci jéem roy waxaat na ne ngir gaa yu baax ya xamle leen te way leen dana waral seeni saxaaba roy leen bu dul ko nag ñay bind ngir yarax raaf na budul ko nag ñay tari xam-xam daay na budul ko nag ñay yeete gaa yi yàndoor dootuñ dootuñu yewu abadan ba xëy buur kon ñiy jàng ak ñiy yeete ak ñiy waare ak ñiy nettali dañuy liggéeyal diiney lislaam maam Cheikh Anta nag bu ñuy waxtaan ci moom duma leen wax ne ñii ñoo ko meññ duma ko wax ndax ñépp a ko xam duma ne fii la gane àdduna ndax ñépp ko xam duma ne fii la jànge ak ñii ñoo ko jàngal ak xam-xamam yegg na fii ndax xawma fanal xam-xamam yegg te ñu ma gën a xam loolu ñu ngi teew waaye damay fàttali sama bopp di fàttali ne am juddu bu baax daal ndeke baax ta yàlla yàlla yàlla dogal ci yow nga am ay waajur yu baax daal lu baax te maam Cheikh Anta suñu borom da koo mu am waajur yu baax ndax soxna Anta Njaay Mbàkke waajuram ak Mamoor Anta Sali Mbàkke waajuram ñooñu daal képp ku soqi ko ci ñoom doo mën a def nen nen nut lu baax soo ca boolee nag taqoog cheikhul xadim mu duy la ba nga rembat mu xaj-xajal la mu xaj-xajal ci yow ba dara xajatul ci yow doo mën a def lu muy mel ni nga xam ne noonu rek la mel loolu nag la koy indi mooy bokk ci fu baax motax mag mag ñu bax ñepp dañ daan ñaan seen borom am ku bax ku leen wutu fa habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya dañuy ñaan yalla mu may leen ku bax ko xamne su ëllëgé lañu doon suuxat ci lu bax buñ fi joggé dañu koy yok way duñ ko wañ motax tam ñu wax yow yàlla may ma njaboot goo xam ne ci sama dund sama xol dafay sedd ci ñoom te su may faatu sama xel day dal ci ñoom wa rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrata ayunin wa naa lil muttaqina imaama moo tax yonent yàlla ibrahim ba ko yàlla may ismail mu ñaan yàlla ne ko nii nga ma def maak ismail maa ngi lay ñaan nga def ko sunu njaboot yi soqi ko ci ñun rabbana waj'alna muslimayni lak wa min durriyatina ummatan muslimatan lak yow yàlla nii nga ma def maag Ismaayil maa ngi lay ñaan samay sët yàlla nañu mel noonu kon bokk fu baax dana tax baax soxna Maryam alayhi salaam ba mu amee doom te amul borom kër te xam ngeen ne ba àdduna sosoo ba fii mu ne fu nit ñu baax nekk bu ñu gisee soxna su am doom te amul borom kër day ub seen bopp dañuy jaaxle moo tax soxna Mariam ba mu amee doom te amul borom kër ba ñu koy yedd dañ ne ko lii day xamuñu foo ko jële ndax sa kër bàyyi day xamuñu lii sa kër ndey xamuñu lii yaa uxta haaruna maa kaana abuki mraa saw in wa maa kaanat ummuki bariya kon ndeke soo bokkee fu baax dañuy séendu ci yow ne baax rek ngay mën a def bokk fu baax nag li muy baax baax baax am na lu ko gën mooy bokk ak ku baax pas-pas ndax nit mën naa bokk fu baax te du bokk ak ñoom pas-pas soo bokkee soo bokkee ci ku baax ba noppi bokkaat ak moom pas-pas day daal di nekk nuurun ala nuur waaye bokk ak moom dong te bokk leen pas-pas am na lu ko gën xam ngeen ne soxna Fatima tudde bintu rasul dafa day doomi muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye bokk ak moom pas-pas motax fuñu ko tuddé dañ nan soxna Fatimatu bintu rasul radiyallahu anha la ñuy wax moo daana wax ni Fatimatu mi de ci man la soqi ko lépp lu ko wokk xurima inna fatimata bidaatun minni yaribuni ma rabaha xam ngeen ne Salman al Farisi day bokkut dara ak yonent bi waaye bokk pas-pas moo tax mu ko daan taf ci boppam naan salmaanu minna alal bayt nun ahlul bayt salmaan ci ñun la bokk te bu dee deret bokkut ak moom dara waaye dañoo bokk pas-pas xam ngeen itam abu lahab moo ko abdullahi mi waajur yonent bi ñoo bokk lépp lépp lépp te la ko alxuraan di yàq umpul kenn tabbat yadaa abi lahab ana ko ko teg mooy ñàkk bokk pas-pas motax way kat bo waxon na ne kon ndeke njabootuk yonent bi moy ñi top ci diine mbok ak mom pass pass ak fuñu mëna mën ko mu ne bu fekkoonte ne njabota moy ñi bok ak mom deret kon ni ñuy julle ci mom dañuy jullitam ci abu abu lahab alu nabiyyi humu atba'u millatihi min al aajimi was-sudani wal arabi لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب تي أبو لهب كان جولي تي موم اك ليمو كو بوك اك ليمو كو جيجي جيجي تي بوك كون نك نديك اك بوك لي ام ام سولو بوك باس باس مو گن تي لول نك دا فا دال مام شيخ انت ndax day mbokum serigne bi ci anam gep génn ko ci genn wet ba noppi bokk ak moom pas-pas saxaaba yi nag seen bokk googee dañu ko jaay doon taalibey muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax alquran moo leen teeleyee ne leen yonentu bi de moo leen gën a sañ ci seen bopp nit nag bu la gënee sañ ci sa bopp da koy bàyyee sa bopp alquran dane ko dane leen an nabiyu awla bil muminina min anfusihim yonent bi moo gën a yey ñi ko gëm moo leen gën a sañ ci seen bopp moo tax ñu bàyyee ko seen bopp moom tam mu ñëw firndeel ko wax ne bala ngaa gëm yàlla gëm gu mat dangay mel melokaan yii mooy maa lay gënal sa ndey ak sa baay maa lay gënal sa doom maa lay gënal sa bopp maa lay gënal ñëpp لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كون ديك باس باس دو اي واخ ما سيرين بي ньо بوكو باس باس موم لا ياكار واخ كو رك دوي ديس كوي جيف موتاخ مام شيخ انت جيخون تاك تاك تاك تي شيخ الخديم با bayit yi may nettali sëriñ Moussa Ka wax ko te mu ko daan wax sëriñ bi musu noo gis nit ku koy wax sëriñam mos naa dikkal sëriñ bi naa ko nos ma nos ma muy bënnal sama bakkan takk ci buum mos naa dikkal sëriñ bi naa ko ñaas ma ab jaam la ñaas ñu xam ne yaa di gor sa maa di jaam ba yoro di pël malal du moo di jàmb yoro mooy pël bi pël na day am jaam malal nag mooy jaam bi mooy man moo tax sëñ Moussa ba muy daaneel ne ko yaa jëkk a fab say biir ci seenu askan jébbal sëriñ Touba niroowul ak kenn kon gis ngeen mag ñi ni ñu royee saxaaba yi ci fab seen kilifa jox ko seen lépp ba mu gënal leen seen bopp ba nanguñu nos la ñaas la jaay la def la jaam te ngeen bokk ci ndey bokk ci ba bokk ci baay damay wax ni mag ñi ni ñu amee ndimbal foofu lay feeñee koo xam ne bu ngeen demee ci wetu ndey yéen a bokk kenn mënu koo xeet bu ngeen demee ci wetu baay yéen a bokk kenn mënu koo xeet nga jàng ba dañu réer di doomi soxna waaye nga boole lépp gas ba mu xóot nga suul nan nosma ma ñaas ma jaay ma loolu tawfiq tawfiq rek la waye lolu am am xel mu reey duko ko maye ay pexetam duko maye bi nak biko yàlla wacce mu tambale wote di yeesal diine l'islam fasiyene yéene sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa indi yett yoo xam ne wolof danaan nit du mat waaye sëriñ bi moom dafa wax ne yett yi ku mu daje ci yow da nga doon nit ku mat la ci jëkk mooy dañu lay xamal ba nga xam la nga war a xam dangay doon ku xam ndax jaayin matul ñaareel bi mooy dañu lay toqi ci jëfe ndigalul sunu borom ak bàyyi tere sunu borom ndax kudul dul jëfe ndigal te doo bàyyi tere doo mën a mat ñetteel ba nag mooy dañuy defar say jikko ba ni nga juboo ak sa borom nga juboo ko ak sa moromi jaam am makaarimul axlaaq yett yi soo da nga doon nit ku mat moom la sëriñ bi naan bi ilma wal amala ka adabin tuksi bukal kamaala yett yi soo ko boolee da ngay nit ku moo tax mu daan wax mag ñi di wax njaboot gi ne leen yéen seen taar la ngeen di waaji di ko wàllee du lu ngeen di sol du lu ngeen di takk waaye xam-xam bu mat sëkk jëfe ndigalul sunu borom bàyyi tereem yu mat sëkk am teggin yu mat sëkk yii mooy seen taar jamaalukum ilmun wa saayun wa adab falaazimuha yukfa ankumul wadab su ngeen takkook yett yi dangeen ngeen takkook mbir mu yàqu walla mbir mu ñaaw yett yooyu kon bokk na ci yig sëriñ bi tënke yoonam wi waaye mu boole ca nag beneen muy kasbul xalaal muy nangoo faste xànc ak morom ja nangoo liggéey ndax liggéey danaan wax moom sëriñ bi naan liggéey ci jaamu yàlla la bokk ndax jaamu yàlla yi nga xam ne soo dul liggéey doo ko mën a taxawee doo ko mën a matale dafa bari moo tax yàlla ni mu santaanee ne suñu nodd bi salaati min yawmil jumaati lu mu ca fas aw fasaw ila dikrillah wa darul baya lépp looloon def na nga ko bàtta dem julli ji ndax loola day moo gën su ngeen xamoon bala nga bala nga doon def dem julli ji moo gën waaye da caa teg nag ne bu ñu jullee ba sëlmal nag la ma la digaloon mooy loo nekkoon bakkota julli ji boo sëlmalee itam loo newoon bakkota dem liggéey fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ard wabtaxaw min fadlillah boo sëlmalee demal liggéey loolu sëriñ bi xam boole ko ci ponk yoonu murit daraan wax naan ku bëgg tey ju jag ak ëllëg ju jàkk da nga sori noflaay da nga sori loxoy neen ndax ku dëkke loxoy neen ak noflaay sa dara du jàkk tey sa dara du jàkk ëllëg fadaatan wa raaxatan lan yusira shaxsan arada an yakuna muusira dem na sax moom sëriñ bi banaan sàkku lew day faratal ni julli doone farata ak nata azaka ak koor ni la sàkku lew doone farata wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi gayri wahami léegi nag yent yi ma tudd nañu natt maam Cheikh Anta bu dee xam-xam bi ma jëkk a tudd nit ku mat day xam maam Cheikh Anta dafa jàng ba ne ar xam li doomi nit ku yiw war a xam bu dee jaamu yàlla muy jëfe ndigal bàyyi tere maam Cheikh Anta musta jóg ci ndigalul yàlla musta jege lu yàlla tere bi sëriñ bi nekkee jolof mos na ko woolu mu ñëw mu téye ko ramadaan jot ñu um ramadaan mu di ko naafilaloo ramadaan ba ramadaan jeex ba mu fa jógee dana sëriñ bi de dafa am lu muy wane wax na dëgg la muy wane mooy xéewal yu bari ak barke bu bari jootewut dara ak saytu sa diinay borom ak taxawee sa diinay borom man alquran di taxawe naa naafile weeru koor jootewut dara ak barke bu bari ak yu bari bu dee teggin ak makaarimul axlaaq nag buñ demee ba ci biir danañu gis la mu doon séq ak jaame yàlla yi waaye daal liggéey moom bokk na ci ñi ci gënoon a ràññi te mag ñépp doon liggéey nag gis naa ci mbindum sëriñ xaadim mi toog ci sama wet mu ne mag ñi kenn ku nekk danga seet wet gi nga xam ne boo ca taxawee temm danga saytu yoonu yoonu sëriñ Tuubaa danga liggéeyal yoon wi danga bokk ci ñi téye yoon wi maam nu noonu la def jàngale ak yare ak liggéey ci mbay maam Cheikh Rafal noonu la def yare ak liggéey ci mbay ak ñeneen ak ñeneen waaye maam Cheikh Anta tam loolu la def jàngale yare ak liggéey waaye nag ci liggéey ci anam gu lépp lu dagan loo xam ne boo ca defee sa loxo man nga caa amee xéewal dafa ca daan def loxo te loolu dana leer ci kanam léegi nag ma dugg ci li sëriñ xaadim wax sànq ne mooy xolu waxtaan wi mooy taxawaayu maam Cheikh Anta ci yoonu Cheikhul Khadim ma tënk ci fukki point fukki tomb ak juróom-ñett bu ci nekk dama ciy jaar jàll xañ na bu sëriñ Bouchra jëlee ak sëriñ Fallou Galas ak sëriñ Mamor danañu ko gën a càmbar ba ca njëkk moo di maam Cheikh Anta bi mu liggéeyee di liggéey ba am lu ne gàññ bokkut ñi nga xam ni dañu koy jal jël ko jal ko ba noppi nag jël ko moom defu ko de moom bi mu baree nag dafa laxasaayu dama ciy liggéeyal lislaam ana fu mu tàmbalee dafa tàmbalee ci ki nga xam ne moo ko defar moo ko yar muy Cheikhul Khadim li mu jox Cheikhul Khadim ci ay hadiya néew nañu ñu ci daf maam Cheikh Anta da daan fab alalam di jox sëriñ Touba da daan fab alalam di ko joxol Serigne bi ñi nga xam ne sëriñ bi moo leen war a jox te ka ci jiitu mooy borom borom Cham Mamour Diarra. ñoom ñi nga xam ne sëriñ bi moo leen war a jox mu daan liggéeyal sëriñ bi ci ñoom kon di jox sëriñ bi alal ju bari di jox borom saam alal ju bari di jox nag ñépp muy benn ñaar gan gu sëriñ Tuubaa am xel yépp day daj ne bu dalee ak maam Cheikh Anta xolam dana set kon bokk na ci liggéey bi mu jàpp ci liggéeyub Serigne Touba mooy teral gane Serigne Touba te wolof nee na gan ku ne gan gan mënees na koo nettali lu ne mënees na koo tere lu ne ba mu des xoole ak nettali te defe naa ne ku ñëw Daaru Salaam de da gis da boo bëggee xool da nga am nga loo xool soo bëggee nettali da nga am loo nettali kon daana liggéeyal Serigne bi ci gan ñi koy gane si mu di leen daloo. teraanga ya war ci ñoom mu di ko def ñetteel ba moo di ñii ñëw ci sëriñ bi di sàkku ndimbal rawatina am ay bor te as su ko ay bor jiitalee bu tëddee guddi tam du nelaw as gor su bëtam xonqee fa mu yaakaar rek fa lay jëm te sëriñ Tuubaa la ñu yaakaaroon sëriñ Tuubaa fi moom maam Cheikh Anta doy na ko sëkk ba tax na bare na ku bëtam di xonq war a ko amee bor boo ñëwee dalay yabal ci maam Cheikh Anta mu fayal la say bor wax nañu ne am na gan gu mës a ñëw xam naa bor ba dafa takku sëriñ bi ne maam Thierno yaag Cheikh Anta fay leen bor bi maam Cheikh Anta ne ko li nga ma defal xajul ci bor bi li nga defal Thierno xajul ci bor bi cheikh ne ko yaari kuuy xajul ci mbalke wax ko mu fay ko mbaa ma fay ko mbàkke na ko nu fay wala ma fay ko waaye man xajuma ci bor bi ceerno xajul ci bor bi ñeenteel bi maam cheikh anta liggéeyal na lislaam liggéey na sëriñ tuubaa ci xe lu xewoon ci jamono léegi jamono jeexal na ko waaye dafa xewoon ci jamono mooy njaam ak njaam li mu jënd ci ay jaam mbaa yàlla leen kenn xamul lu mu toll te goreel jaam day jaamu yàlla gu rëy ci lislaam moo tax lislaam benn bunt képp la ubbi wala ñaari bunt ci la nit di jaar ba doonub jaam mooy ngay xare ngay xeex ñu jàpp la ña la jàpp tam sa saña dem ca jaba jaay la waaye nag benn bunt boobu dafa ubbi na yeneen bunt yoo xam ne danaa soo defee nangam goreelal jaam soo dogee ci weeru koor defal nangam soo ko mënul defal nangam soo ko mënul nanga gooreel jaam soo giñee ne danaa def nangam te defoo ko defal nangam soo ko mënul gooreelal jaam kon bari na yoo xam na ci lislaam dañoo ubbi ay bunt ngir goreel jaam yi moo tax maam Cheikh Anta daan jënd ay jaam di leen bàyyal sëriñ bi sax daana yónnee Mauritanie di fa jënd ay jaam di leen bàyyi yàlla ba tubaab bi mos ko cee euh, joxoñ ne ko li ngay def yoon da koo tere mu ne leen réew ma ma ko ma ma koy jënde moom yoon du ko fa tere te man su ma leen jëndee dama leen bàyyi kon réew ma ñuy jógee yoon yoon yoon ko fa te su ma leen jëndee man dama leen di mbaa yàlla kon maam Cheikh Anta li mu góoral ciy jaam kon bari na fi mu toll ñii ñuy waaxu ak a daagu te xamuñu ne seen maam maam Cheikh moo leen jot moo leen jënd def leen ay góor juróomeel ba mooy bi sëriñ bi nekkee ca géej ga xam ngeen ne sëñ Mat Lo Dagana moo ko fa jëkk fekk waaye bu dee mbokk mu laxasaayu jóge fii ba Gabon seeti Serigne Touba kooka kenn rekk la muy maam Cheikh kon bokk na ci liggéeyam jëf jum jëf joo xam ne ñépp a ko yéene ñépp a ko bëgg waaye man-man bi moom la ko yàlla jagleel muy jógi fii dugg gaal dem ba Gabon ak lam cee jànkonteel ci ay pexe ci wuti këyit ñu koy bloqué di ko koñe ba mu defi pexe te sëriñ Serigne Fallou xamaa bu jëlee kàddu dana ci leeral fexe na daal ba dem Gabon ba gisante ak ak Cheikhul Khadim ba mu gisante ak moom nag nañu def ak lañu waxante dama koy bàyyi ak Serigne Fallou Galas waaye dem na Gabon bokk na ci taxawaayu maam Cheikh Anta yi mu liggéeyal yoon wi liggéeyal ku ñëpp nga xam ne ñëpp ko nimse woon ñëpp ko yéene ñëpp ko bëgg waaye moom la ko yàlla jagleel mooy bi sëriñ bi ñibbisee nag bàyyee ko ca tukki ba ba ñëw nag këram gi mu dëkkoon nag nganale ga nag maam Cheikh Anta rek la ko yàlla may muy nganu Daaru muy ngan goo xam ne li ñu yër akus néew ci taarix mosuñoo dégg ngan gu ni mel la fa def ci ay bernde lañu fa maye ci ay fas lañu ñu fa joxe ci ab xaalis teraanga ya nam doon baawaane lañ ca Dek ak lañ ca jàng mosuñoo dégg ngan gu ni mel bâtiment bii nga xam ne fi la sëriñ bi wàccoon sax dañu ko wodde won ay piis tuusi dafa jënd ay tuusi ñu woddu bâtiment bi biir ak biti sëñ Ka nee ay la wodde taax ma Bàmba wàccoon biir ak biteeg mat loya mat loya bóol ya dal daldi saxal naga geleem gëléem fa daaru diirub la bàmba toog ba réew ma waaru lam rend ciy gàtt mëneesu koo lim lam joxe ciy fasit mëneesu koo xam lam joxe ci xaalis amul ndakaaru ceeb ak maraakiis la woon na daaru ceeb ak cere yi maraakiis la te woon na daaru ca jamono jooje muy 2 1902 kon ngan googu nga xam ne ñépp a ko yéene ku sañoon ku sañoon bu sëriñ bi tukkee ba ñibbisi wàcc fi yow ngan nga nga féetewoo ko ñépp a ko yéene ñépp a ko bëgg waaye kenn la ko yàlla jagaleel muy borom daaru salaam muy maam Cheikh te xam ngeen ne ñibbisi bi sëñ bi ñibbisee ci géej gi ndamul lislaam la ndax tubaab bi dafa bëggoon soo demee sanku sunu borom jël fa bakkanam dootu dellusi su ko defee yoon yu mën raf raaf gis naa sax ci rapport ci ay rapport ay archive yoo xam ne tubaab dañu wax ne nañu génne Cheikh Ahmadou Bamba Sénégal ay at mu dem bitim réew su ko doon def ci boppi nit ñi formation bi mu doon def ci nit ñi suñu amee ay at gisuñu ko dégguñu ko lépp dana mujj raaf ñu ko kon ñoom bañ koy yóbbu dañoo bëggoon a tas woote bi dañu bëggoon a raaf l'islam moo tax bi mu ñibbisee nag képp koo xam nga am nga benn toq baatin kenn képp koo xam ne am nga aw yiw ca sa xol da ngaa bég da sa xol dafa sedd moo cheikh saad way ko wax wa badrin munirin غاب في الغرب ثم لاح من الغرب شمسا رفعة وانتشارا nee serigne bi bamuy tukki di dem Gabon wer la won waaye bi mu ñibisé jant la nee jant nak ku ne xamna na ne moo tiim fépp leeram tam mo nit ñep jant ku ne xamna na ne moo tiim fépp leeram tam mo nit ñep waxat ne hani an li za diinil garibi alladi bada yatiihu sururan minkum wa iftixaara nee na maa ngi ndokkeel nag diin diinu lislaam mi nga xam ne dafa tumuranke woon ni ndaw di tumuranke su waajuram tukkee yow bàyyi ko ginnaaw ne la lislaam tumuranke woon bi nga ñibbisee nag lislaam dafa bëgg lislaam dafa bàkkuwaat nee na kon maa ngi ndokkeel lislaam am na naar bu ko wax ne ko xawaariquhu yakfiika minha rujuuhu ala xayri xaalin baadama rakiba al bahra nee na xar baaxi Serigne Touba kenn mënu koo lim waaye nee na bi ma ci tudd rek mooy mu dem del ñëw mel na mu meloon ne ci jàmm nee na loolu rek xar baax ndax fa ñu ko yóbbu kuñ fa ma sa yóbbu doo del si bi mu delsee nag ñu baax ñépp bëgg seen xol tooy seen xol sedd ñu koy ganale nag maam Cheikh Anta la ko yàlla jagleel juróom-ñaareelu tomb bi moo di maam Cheikh Anta dafa sagoo diine sagal diine دار فيسول بتم لودول دين الإسلام دار فيسول بتم لودول دين الإسلام مساواة دينه جف دينه جاب بتش دينه سوخ دينه وينك سجل دينه بنيب خيم دينه ت ت ت سجل دينه بنيب خيم كجامو يلا قل من حرمه زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق moo tax maam Cheikh Anta laxasaayu liggéey ba am xéewal yu bare baree bari mu ca dox mu di ca dox nag doxin woo xam ne ñëpp dañuy xeemam lislaam ñëpp dañuy xeemam yoonu sëñ Tuubaa ndax bari na nit koo xam ne ku xool ci moom doo xeemam lislaam bari na ñoo xam ne soo xoolee ci ñoom doo xeemam sëriñ Tuubaa moom nag fexe na ba nga xam ne ku xool ci moom da nga xeemam lislaam da nga xeemam sëriñ Tuubaa moom la sëñ Moussa Ka di wax naan lu nekk moo ko jëkk def ci réew mii ci xeeti xayte modernité civilisation lu ci nekk ci Sénégal maam Cheikh moo ko jëkk def lu nekk moo ko jëkk a def ci réew mii ci xeeti xayte kii du njar ci soow mi cheikh tax taxoon ku ku nekk xemem yoon wi xaadiru ak tiijaanu ak ñooñu yoon wi kon xaadir su dee xemem yoon wi akub tiijaan akub murit nee na maam Cheikh moo taxaw ndax dafa sagoo yoon wi sagal yoon wi bokk na ci li mu liggéeyal yoon wi liggéeyal ko diine ji sagale ko yoon wi mooy buuri àdduna yi feesuñu bëtam ñoom sax seen bët xonq ñuy ñëw ci moom mu di leen dimbale Ngalandou Diouf ku ne xam na ne da ko daan lebal xaalis man mos degu, maa dégg émission ci rajo am doomi ngal du waxal boppam ci làmmiñam ne ne Cheikh Anta de da doon xaritu sama bayi, da ko daan lebal xaalis musa tax ma sëñ Moussa Ka ne ko yaa daa lebal baadoola yeeg ñi fiy buur su baadoola soxlaa yaa koy lebal su koy lebal kon di alal di ko lebal buur yi kooku mi ngi sagal Serigne Touba mi sagal Serigne Touba. kon nag kuy daw di kuy daw topp ci ginnaaw buur yi bëgg ci ñoom njariñul àdduna sagaloo yoon wi sagaloo Serigne Touba kon maam Cheikh Anta da doon lebal buur yi àdduna yi di ko sagale lislaam di ko sagale yoonu Serigne Touba juróom-ñeenteel bi bokk na ci taxawaayam bi mu sagale yoon wi sagale ko yoonu Serigne Touba mooy dafa wuutoon këri lislaam li sëriñ Mourtala di wooye këri lislaam muy dëkk bu am solo ci Sénégal def na fa kër te ku ne xam na ne këru maam Cheikh Anta mooy këru wàccuwaay këru maam Cheikh Anta mooy kër murid yi kër xaadir yi kër tiijaan yi kon bëggul benn doxandéem bu wàcc ci dëkk boo xam ne am na fa kër ngay tumuraat kon foo wàcc buñ ne kër maam Cheikh Anta mi ngi fi da ngay jàpp ne yaa ngi sa kër baay loola sagal yoon wi la sagal lislaam la fukkeel ba bokk na ci liggéeyu maam Cheikh ak taxawaayam dundal gi mu dundal bokk gi dundal gi mu dundal bokkuk lislaam gi di jokk mbokki murit yëpp digganteem ak ñoom waaye bokk yi mbokk lislaam muy jokk digganteem ak ñoom misaal mi ci gën a leer rek ñu koy joxe mooy maam alxaaji Malick si ba mu nelawee ba mu nelawee cheikhul xadim di fa yónni ndaw mu war a jaale ji di fa yónni ndaw mu war a yóbbu teraanga yoo xam day mat sëkk ba mu xoolee ba xool kam ca doyloo muy maam Cheikh mu dem nag doon ndaw lu mat ndaw jëf fa jëf yu mat teraanga yu mat sëñ Moussa Ka mi koy wax naan keroog ba alxaaji mu siiw ma Malick faatoo Tiwaawan kooka moo di Salick keroog la Bamba woolu Sidi Anta mu dem ko jaali romb kër Buukunta ñaar fukki nag la jënd dàq yëtli 1922 fukki nag 1922 la jënd saako ceeb la boole jox leen boole ca xaalis bopp mënee su koo lim ne leen li wajhillaahi moo di yaaram la mu def yàlla rek moo tax mu def ko Sëriñ Tuubaa rek moo tax mu def ko ak bokk rek moo tax mu def ko te nag yu bari yi ma tudd ak xaalis bi ak ceeb bi da ngeen xam ne 1922 la xewe woon keroog la tiijaani tiwaawan mbooloo ne ko dundal nga diine yaa rëy rëy nga mbooloo kon dafa ànd ak mbooloo mu bari ndax kenn ku ne booy dem dangay ngay demee ni nga toll yow yaa jubóog tubaab yi ak tiijaan yi ak xaadiroog limaamu ak wayñaan yi boole nga kër yi yaa salaat nga lislaam sàqi sàqi nga ñag ba Sidi Anta yaay daal ngir Maodo moo di Bàmba bambay mawdo ku leen di feewali xamoo looy wérdu loolu la sëñ Moussa Ka wax léegi nag damay bañ benn ndaw kunda jàpp ne am ah, man day ñaar fukki nag ak ñaar fukki ak joxe suma sobe waaye alquran Quran na lislaam ba mu néewee doole nyukoi koy càkk-càkkal di ko taxawal mu noon yi wër ko ne du fi taxawe ñëpp di ko xeex ña ca jàppoon di ko càkk-càkkal di ko càkk-càkkal ba mu taxaw nee na ñooña seen jëf kenn mënu koo dab ak loo mën a jëf doo leen mën a dab laa yastawi ko man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal ulaika aadamu darajatan min alladina anfaqu min baadu wa qaatalu waaye nag wa kullam wa'adallaahu husna yàlla nee na ba ñuy càkk-càkkal lislaam ña ca jàpp ba mu taxaw kenn mën kenn du leen dab seen ginnaaw nag bi lislaam taxawee ku def lu baax yàlla fay la waaye ñooñu moom kenn mënu leen a dab waxaat na sax moom yonent bi ne laa tasubbu asxaabi fa walladi nafsu muhammadin bi yadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban maa balaxa mudda ahadihim wala nasifahu nee na bu leen diir mbagg sama saxaaba yi bu leen fontoo sama saxaaba yi war naa ci yàlla ne kenn ci yéen su defoon te lislaam lu toll ni jabalu Uhud ci oor du dab seen mudd du dab seen genn wàllu mudd ndax ñoom ba ñuy càkk-càkkal lislaam lañ doon jëf la ñuy jëf moo tax nañu bàyyi xel ne kon maam Cheikh Anta lam doon def ba ñuy càkk-càkkal yoonu murit booba la ko def ndax booba ñu ngi sikki mu yoon wi tubaab yi ceddo yi yenn doomi soxna yi ñu añaan yi ñu ngi sikki mu yoon wi bëgg koo fay kon nag ña ca jàpp di càkk-càkkal di càkk-càkkal ba mu taxaw ñoña kenn du ñom waskuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yataxatafakum annaas fa aawaakum wa ayyadakum bi nasri wa razaqakum min at-tayyibaati la'allakum tashkurun ñoña kenn du ñom fuk ak ben bokk na ci taxaway mam Cheikh Anta bi ñu war a mu liggéeyal ko yoon wi sagale ko lislaam mooy pas-pas bu dëgër bi mu amoon gëm gi mu gëmoon sëriñ bi jàpp ci loo xam ne bakkanam la ca kar kenn mënu koo ger kenn mënu koo xupp kenn mënu koo xëpp ku ko xupp du sotti ku ko xëpp du sotti ndax sëñ Tuubaa mi ko yar moo ne woon falastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jàlla yuxniini wa yunjiini nee na yaakaaruma kenn ku dul yàlla ragaluma kenn ku dul yàlla ndax li ma bëgg yàlla rek moo ko am li ma ragal yàlla rek moo ma ca musal kon du ma ragal kenn du ma yaakaar kenn kooka nag ki mu yar muy maam Cheikh Anta la doon doxe loolaa waral yan bu rëy ba dal ci kawam amoon na nu muy négocier maslaa neexal tubaab bi kon nattu bi du dal ci du waaye dafa roy Serigne Touba mi nga xam ne sëñ Moussa Ka newoon na Serigne Touba kasoog fetal ak karawaas ak jaasi du tee Serigne Touba di way jinaasi jinaas kooku la sëñ gaawaan roy moo tax sëñ Moussa ne ko sayeen bu rëy bi diis na mboolem senegaal te tawato kalaame wo ni'mal rijal neena kérok bu génné won galak ba galak galak moy impôt biñ la liñ la tek manam liñ la tek ne la soko défé ñu bala neena kérok bu génné won galak ba ñu bako waye du falang dogal ba xamna ne gannaaw serigne bi muccul mom du mucc motax famu jaaron rek fofu la jaar kon lëggéeyal na lislaam lëggéeyal na yoon wi ci dëgër ci pas-pasam kenn mënu koo xub kenn mënu koo jënd kenn mënu koo neexal ba lu ko ci fekk fekk ko ca fukk ak ñaar mooy lëggéeyal na lislaam lëggéeyal na yoon wi ci ba ñu ko tooñee ba toññal bi ko jiima la waaye dafa jéggale xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi dafa jekkoo woon ay noonam waaye ba mu jekkoo jékkaliwul ba mu jekkoo de ay noonam jékkaliwu leen waaye dafa jéggale ne allahuma axfir li qawmi fa innahum laa yaalamun yow yàlla baalal sama mbokk yi samay noon dañoo xamul sëriñ bi tam ba mu ñibbisee dafa jé dafa jéggale waaye maam Cheikh Anta ba ñu ko tooñee ba tooñee bi ko dafa jéggale muy lu mat a jàng di lu mat a roy moom sëñ Moussa Ka naan bisub keroog la ne na ngeen ma seere jéggale naa mu wéy di meere mu dib jullit mbaate tubaab kangam kàngam kenn àq kii sangam ne ko nag bu rëy bi diis na mboolem Sénégal te tawatoo kalaame woo ni ama rijaal fukk ak na ci mam Cheikh Anta taxawaayam bi mu taxaw ci ak liggéeyal yoonu Serigne Touba wi Serigne Moustapha Caytu yàlla na ko yàlla doole ay leer mos na maa wax ne ma maam Cheikh Anta nee na sëriñ bi nee na bëri na ma ak seytaane ca Gabon ba tër naa ko tër naa ko waaye xuri na ma yetti xuri mais sëñ bee ko wax seytaane day bëri naa ak moom ba daan ko waaye xuri na ma yetti xuri sëñ Moustapha Caytu nag ne ma. yett ya nag fàtte naa benn ba waaye benn ba sëriñ bi dane aj màkk day ponkub lislaam te taalibe yi dañu ko woyofal ndax bi fi sëriñ bi nekkee benn taalibe musta aj ñoom moom rekk doy na leen màkka doy na leen madina muy benn ñaar nee na xam-xam tam dafa bokk ci diine te taalibe yi dañ ko woyofal nee na maam Cheikh Anta nag ne kon de képp ku bokk ci ak njabootam war ngaa góorgóorlu ba xuri ko yooyu wér pele wér pele léegi sax du ko am sëñ Moustapha nee na loolaa waral maam Cheikh Anta dem màkk ak ñamu àndaloon loolaa waral tam maag Alaaji Saam mu yóbbu ñu màkk ñu sàkku ji xam-xam ngir rek fañal Serigne Touba xuri ko yooyu mu xuri ko woon loolu sëñ Moustapha moo ma ko nettali dama ñetteel ba nag fàtte naa ko ci bu dee ci wàllu xam-xam feeñal na yéeneem fab njabootam yóbbu màkk ci école bu tudd alfalaax fa lañ doon al alfalaax boobee sax ku ñu wax alxaaji mahmoud ba doon na fa jànganoo ak ñoom ma nga dëkkoon Mauritanie man xamoon falah, ko bi ñibbisee moo créé ay école al falah. ba Sénégal école kon maam Cheikh Anta mottali na yéene sëriñ bi ci xam-xam moo yóbbu na njabootam penk ñuy jàngi te boobu xewul ba ca tegee Anta Samb wax na ko léegi mooy mool na téere Serigne Touba yónnee ko Égypte ñu mool ko ci kanam Serigne Touba ndax tasaari xam-xam waaye nag fukk ak ñeent bi may taxaw moo di mooy aj gi mu ajal sëriñ bi ba noppi ajaale mboole kuy murit xam ngeen ne am na tabaski koo xam ne yonent bi saa sallam dafa bu ñaari xar ba muy rendi mu ne gàtt bii sama bopp laa ko reyal ba mu noppee ne gàtt bi samaw xeet laa ko reyal nga xam ne kon xeetu Muhammad alayhi salaam ba ba àdduna yi tukki ku ku amul tabaski itam ja xaj nga ca biir maam Cheikh Anta na xam na ni ak Màkka da doon yéene Serigne Touba. doon bëgg-bëggam ndax bëggul lu dul lislaam bëggul lu dul ka fa tëdd muy ku tedd ka alayhi salaatu moo tax mu waaj waajtaay mu rëy wa ànd ak mbooloo mu tedd ma mu àndal dem aj màkka defal ko Serigne Touba defal ko nag mboolem kuy murit moom la Serigne Moussa Ka daan yaa jëkk aj màkka ci yoonu Bamba yaay sant yoon ci yoonu Cheikhu Bamba bisub keroog lanaa ajaale naa leen مولم مريدين فسالنا لي أكري خب أكري خب مولم مريدين فسالنا لي موت لنا ييني سرين توبا جا جوخنا كو يولو أكا موجي واجا كون لمو ووتي وون لب دكو فبا دكو هدية شيخ الخديم كون لجيلنا سرين توبا كي موت لكو ييني بنوبي نك فسالنا جا مولم تالي دي فكك جروم lee mu jeex fukk ak juróom la fukk juróom maam Cheikh Anta bi mu liggéeyee ba am alal ju ne gàññ waaye ana nu mu liggéeyee sëriñ Xaadim Mbàkke Cheikhu nee na tubaab yi dañoo accaparé woon commerce yore seen boutique yu mag ay magasin yu mag di def commerce nga xam ne njëg yi ñu néew doole yi seen yoon nekku ci ñoom la leen soob la ñuy jaaye Morel et Porom Morel et Porom ñëpp dégg nañ ko Nosoko ñëpp dégg nañ ko ay comptoir commercial yoo xam ne tubaab yi ñoo ko moom di fixer seen i prix yi na leen neexee maam Cheikh Anta ne loolu dana dakk dal di ubbi ay comptoir commerciale moom itam ay magasin yu mag di jaay ni tubaab yi di jaaye di saay di jaay la mu sañ jaay ndax tubaab bi ñoom lépp la ñuy jaay di jaay la mu sañ jaay waaye di ko def nag njëg yoo xam ne baa doole yi dañ ciy jot ñi néew doole dañ ci jot loolu bokk na ci li mu liggéeyal lislaam liggéeyal ko yoon wi bokk na ci li mu liggéeyal lislaam liggéeyal ko yoon bi mu amee alal yu bari 1919 guerre mondiale bi mu jeexee xiif dafa amoon Afrique occidentale xiif yàlla ci yàlla musal xiif baaxut ndaw ko daay xam nañ ci daal bi xiif amee Afrique occidentale bato boo xam ne da ko commandé woon mu def cent vingt mille tonnes astafurlaa damaa jum vingt cinq mille tonnes ñaar fukki junni ak juróom ci tonni ceeb bàyyi ko woon Europe mu waroon koo jaay da ko jox nit ñi ngir yàlla ak jëmi Sëriñ ñaar fukki junni tonnes ak juróomi junni tonnes mu jënd ko joxe ko te yàlla rek tax ndax bëgg faj xiif bi loolu liggéeyal na ko lislaam liggéeyal na ko yoonu Serigne Touba te nag jaadu na ndax booba li mu parc automobile mobile maam chante li mu gaare ci oto Moussa dégg sëñ bu cafet di ci waxtaan booba li mu am ci oto moom rek moo ko am ci si Sénégal booba li mu am ci alal moom rek moo ko am ci Sénégal ku mel noonu nag bu fayee naar bi xoromam war naa joxe vingt cinq tonnes yooyu ceeb te moom dafa fay naar bi dan daan dimbale commerçant yi maa ngi dégg barki dem Fallou Galas si la ne mos naa wax ne nañu ma seetal commerçant yi ma yóbbu leen mak ñaata commerçant mbooloo la dama leen di yóbbu màkk bu ñu demee jënd fa marchandise indi ko Sénégal ndax waa Sénégal am nañu droit ci jënd marchandise su màkk te amuñu paasu màkk kon day jox mbooloo paasu màkk ñu dem aji jëndaale marchandise su màkk bu ñëwee di ko jaay nit ñi ñu koy barkeeloo ci marchandise su màkk daan nag dimbale doomi soxna yeeg nit ñu baax ñeeg bokk yeeg bokki sëriñ Tuubaa képp rek jox dara sax alalam di ko jox tubaab yi di la neexal ngir lu ñu tumbiri ke bi bi bitim gabon dana neexal Touba bi ngir ñu koy wax information yi nga xam ne dafa aju ci Serigne Touba loolu sëñ Moussa Ka naan yaay ndimbalal réew mi ci at mu lebal baa doole yeeg ñi fiy buur teral nga say bokk teral aw jàmbur ba ñépp jag nga jàpp teral nit ñi ba ñëpp ba ñëpp am ba noppi nag nga yombul da nga gis ko xamne man mën joxe way du jàppug jàmbur waaye mom dafa teral ay bokkam teral jàmbur yi bañ kenn ku nek sa aajo faju mu jàppug jàmburam nak motax tax Serigne Mbacke Bousso mi ko séré bu fekkone mam Cheikh Anta amul ben benen séré bu dul seere Serigne Mbacke Bousso rek doyna dafa bind téré bu tuddu lisanul haqqi yatakallam mu cey wax melni sunu borom moy wax Nan man ma sak Cheikh Anta nimu mel du kenn mana man yàlla Cheikh Anta ni mel ci xol bu laa ak xel mu rafet ak neene nga xam ne dara lu ñaaw du kenn mana man yàlla mana Cheikh Anta limuy muy joxe ndeyjoor ak càmmoñ guddeeg bëccëg te xàmmewul noon ak xarit mbokk ak di ko defe noo xam ne mel na ni tëyu ko du kenn man a man yàlla loolu la sëriñ Mbàkke Buso seereel maam Cheikh Anta fukk ak juróom benn mooy wàccuwaayu Daaru Salaam ci yoonu murit Daaru Salaam ak Tuubaa sëriñ bi dafa wax ne ñooy ñaari barab yi nga xam ne ba ma leen di sanc xeñtu jeexiti maam taxul ma sanc leen tool yu may bay taxul ma sanc leen jàtt ju may sàmm sama jur taxul ma sanc leen wa innama li ibadatillahi wa xidmati rasulihi alayhi salaatu wasalaam jaamu yàlla dong ak liggéeyal Mustafa dong moo tax ma sanc Daaru Salaam ak Touba nee na yaar yi nag moo tax ni ma bëggee Touba bëggee ko Daaru Salaam mënuma ko bëggee benn dëkk fu mu tudd Touba ñaare dafay tudd Daaru Salaam li mu tudd Daaru Salaam kenn mënu koo lim dama ci tudd rek juróom benn bayit lii jut bi aw bati ila daari salaam dunya wa uxra wali tuuba bi salaam yow yàlla may ma ma ñibbi Daaru Salaam ci àdduna ñibbi Daaru Salaam ci àllaaxira ku fal ida anni wa qudniya ila daari salaami za ridaa in wa ilaa لفتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا بسلام سألته بالمصطفى خير الأنام تعجيل أوبتي إلى دار السلام نويت شكره إلى دار السلام وعند الطوبايا بجسم وقلام نويت شكرا بالمداد والقلام والقلب والجسد في دار السلام كن لم دار السلام تدق بنندك دك ndax fu mu tuddu touba tuddu ko daru salam ta leg leg mu tuddu daru salam sax te tuddu Daaru Salaam nag war naa mën a am boobu cër ndax dafa bari cër bokk na ci cër yi Daaru Salaam mooy dëkk bi sëriñ bi jëkk a moom te sëñ bi danaan wax mag ñi ne leen day leen sañ ci seen barabi bopp ndax ku sañ ci lu ñu rëddal la te ku ñu rëddal ne la yemal fii kon nag sañ ci foo xam ne kenn du leen yemal fii moo tax mu sañ ci Daaru Salaam nga xam danga fiy sañ li yàlla digle nga fiy digle li mu tere nga fi tere wax nañ ne Maba Jaxu bi mu faatoo ba mag ñi ñibbisi Mam Maska dafa gàddaaye Ñooro dem kaaran kaaran bi mu wàccee ak dongo yi ak njaboot bi bëgg a dallu dégg sabar ay sabar mu yónni ndaw ne demal ne ñoo ñuy yëngu nañu bàyyi li ñuy def ba mu demee ñu ne ñu ne leen xanaa gan gi gan dana yewi bëy ak tay tay tàmbali bëgg tere nan bàyyi leen tëgg mi ton tontu yu ñagas waaye dana dëkk bi de du fi fanaan rañaan topp guddi ba ca digg màndi mu wàcc fa gor fa fanaan fa ba mu xëyee mu sanc fa tudde ko euh, alhamdulillah mooy amdalaay bi ngeen dégg mooy amdalaay mu tudde ko alhamdulillah kon sëriñ bi dafa xam ne am sa barabu bopp moo gën ñu lay rëddal ndax bu ñu la rëddal la ne la yemal fii kon Daaru Salaam la sëñ bi jëkka sañc wutal ko tur woo xam day wane ne kuddam jàmm rekk la ràcc muy benn ñaar mag ñi mu njëkk a wàcce Daaru Salaam la ñu wàcce loolu beneen dëkk amu ko maam Cheikh fii la wàcce moom mi borom penc mi fii la wàcce Cheikh Ibrahima saar Njaañ fii la wàcce su ma tuddee ñooñu mu doy ak lan am na beneen cër bu Daaru am am fenn amu ko muy bi sëriñ bi ñibbisee ñibbisee ñu koy gànnaale fii lañ ko gànnaale ak ban am na beneen cër bu kenn amul mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha fii la ganee àdduna ak ban am na beneen cër bu kenn amul mooy Cheikh am moom Cheikh Moustapha mbokkam ma fii la ganee àdduna mu Cheikh Mouhamadou Fadil yooyu day cër yoo xam ne Daaru Salaam am na ko te fenn amu ko fukk ak juróom-ñett mooy maam Cheikh Anta laata muy génn àdduna layoo naan ñëpp ba yey leen layoo naan ñëpp layoo naag bokk yi layoo naag taalibe yi njaboot gi seeral ko sunu borom dafa bindub lettre lettre bi yéen ñëpp xam ngeen ko am ngeen ko wax ne bismillahi rahmaani rahim wa innahu min min min sayyidil muxtaar الى اهله عموما وخصوصا كون بايو كان من شيخ سيدي مختار ما بند بتاخيل بي سلام تشيعه نصيحه دي نيو نيو بو خامني داماكو بولك دي لن لاي بير فالموجب لي تخ ما جيل سما خليما اعلامكم باني ما امرتكم ولا امركم الا بتقوى الله العظيم دما لن خمال نل مسوما لن ديغل te du balen digal mukk lul ragal yàlla wa ta'ati ma faradahu ak top ay farata kas salati wa sawmi li ramadan niki julli ak wo ramadan ak yani demee waqtifaa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam ak xeñtu sunna su muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa man faala gayra haada aw xaalafa al furuda aw sunnata képp nag ku def nag leneen lu dul lii wala nga juuyoog farata ak sunna faqad tabarratu minhu zahiran wa batinan na nga xam ne génn naa ci yow ba set wécc saay rek baati képp ku juuyoog ndigalul yàlla ak ndigalul yonent bi na nga xam ne génn naa ci yow saay rek baati wa in maata walam yatub bu dee nag tuuba ko ba dee falaa yalu man na ila nafsa bu ma mere kenn kenn deful kenn daram lu ko dal moko def bop man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha nee ku def lu bax sa bop ku def leneen sa bop wa qad jaaltu hadha alkitab xujjatan bayni wa baynakum sama tere bi lettre bi nak moy sama lay sama digeunte ak yéen wa bayna allah taala ak sama digeunte ak sama borom wasalaamu alaykum wa rahmatullah kon mam Cheikh Anta layoo ba yey layoo ak ñëpp waaye yàlla bu mu yey yàlla bu mu yey ndax ki yey mooy ki def leneen waaye ku def li mu wax du la yey kon yàlla bu mu yey kon maam Cheikh Anta foofu la tegoon tànkam noonu la doon doxe doon rakki Serigne Touba. doon doomi bàjjani Serigne Touba doon taalibeb Serigne Touba doon soppeeb Serigne Touba bu jeex ci moom tàkk bëgg sëriñ bi Serigne bi bëgg ko te bëgg buur baax na lool waaye buur bëgg la dafa gën ba xam ngeen ne bi mu demee ba le 11 mai 1941 yaramam diis mbokkam ma Serigne Afe yu jóge Njaareem ñëw seet si ko bi mu ñëwee seet ko ndeke moom mi ko seet sax mooy njëkk wuju sunu borom. nelaw na sax te kenn mënta wax maam Cheikh na ko sëriñ Afe mi la seet si woon wàcce nu liggéey ndax ku yaramam diis doo ko tegu naqar ba tax ñoo ànd dem rawanti waaye ba ñu demee tam bàyyi nañ fi njaboot goo xam ne mujjewuñ puso bi mu réer la ko dale ca sëriñ Modou Mamoun ba ci sëñ Mor a Fàcc kenn mujjewu ci puso bi bi mu réer ci ay loxo waaye nag ñoom ñooñee dañuy ñoo xam ne kenn mu leen wut ndaxte ngën ji mi def mooy Moustapha kenn mënu ko wut saxaaba yi lu ñuy jàmbaare jàmbaare kenn mënu ko wut Serigne Touba kenn mënu ko wut waaye nag bàyyi nañ njaboot yoo xam ne man nañu sëkk lañu doon waaye ñoom nag kenn mun kenn mënta mel ni ñoom sëriñ Moussa nee na sëriñ bi waa ju ko gisoon ci sab xol koo mënatee gisit mu sew fi sam xel sëriñ bi waa ju ko gisoon mu gis la koo mënatee gisit du tax mu saf la du tax mu doy la du tax mu doy la sëriñ bi waa ju ko mosoon mu mos la koo mënatee mosit du mu saf la làmb ja toj na ma tas na ngembam suur bëri suur bëri yee fi des di bàkku accam kon nag ñoom kenn mun leen a wuutu waaye la ci sëriñ Mouhamadul Mamoun ak rakkam ya ba ca njabootam nga ba ci sëñ Mor mii kenn mujjewu ci busoo bi mu réer kon yàlla na nu yàlla sàmmal kilifa yi nga xam fi Cheikh Anta yalla na yalla fayal maam Cheikh Anta te dolli ko ay leer di sant nag ñi teew ñëpp di sant nag njabootu maam Cheikh Anta la ko dala ci Serigne Mor ba ci ki mu ne àdduna di sant di sant daayira sëti maam Cheikh Anta yi ndax ñoom kat ñoo ma jàppale bi may waajal waxtaan wi dañ maa yónnee document boo xam ne Serigne Khadim Silla sëriñ euh, Abdoul Ahad moom Serigne Hamidou ak seen bokk ya ñu àndaloon jox ma document boo xam ne. doy na sëkk ak nag gëstu boo xam ne rawdu rayaaxin moo ko def ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba bind ci borom saa Maam Mor Jaara bind ci maam Thierno bind ci sëriñ Ndaam bind ci mag ñi bind ci maam Cheikh Anta te Serigne Khadim Mbacké Cheikhu moo bind ci maam Cheikh Anta gëstu boo xam ne bu matale bu xóor kon dañ koy sant dañ koy gërëm. waaye nag di ñaanal sunu maam ja sëriñ Moussa Ka ndax sëriñ Moussa Ka day li li mu li mu téye ci mbirum sëriñ bi ak mag ñi àndoon sëriñ bi nga xam ne bu woon ak moom dana réer dana raaf kenn xamul lu mu toll moo tere lu bari réer moo tere lu bari raaf kon moom itam maam la joo xam ne euh, bay na waaram ci. liggéeyub Serigne Touba Touba yàlla na ko yàlla doole ay leer te sàmmal ko sëriñ Modou mi nga xam ne mooy xalifaam ak mboolem njabootam di sant nag di gërëm ñii ma wër ci ni ma ko waxee woon nga xam ne bu ñu fi toogoon wax fi loo xam ne moo gën a leer samay wax ndax sama sama làmmiñ dafa dese desee set moo gën a xóot sama xam ndax sama xam dafa desee xóot yàlla nañ ko teewaat nëgëni déwén. te bu déwén naree ñaaw yàlla na dàq ren te ñu teewee ko déwén yu bare bare bare yàlla sàmmal nu Serigne Mountakha ba lépp lu mu lépp lu mu song yàlla na ko daan lépp lu mu sumb yàlla na ko eggale te yàlla nañ ko ànd ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa